Assalamualaikum sëñ bi. waaleykum salaam. mbaa yaa ngi bàyyi xel tali bi ak ñinga andal soxna si wacc leen tali bi te ngeen sol seen gilet de sécurité. man de dama ñew ba fi sama bëna bi toj. waye nak fo ngeen wante ak li leen wa autoroute bi sante li ci ñëk moy nga taal say détresse tek sa panneau de signalisation soo noppee nga yëkkati sa malu auto soga nak wo ñi nga xamanteni ñom ñoy yor sécurité bi 800 00 41 41 xanaa xooloo say lata laataa ngay genn jotuma ko ay xol yakamti rek gis nga accident yu metti yi nga xamanteni ñu ngir lor nit ñi di leen ray pneu yi di tocc ci kaw tali bi ñoko waral balaa ngeen di jappati aw yoon xool leen seen ay pneu ak seeni làmp def ca la war bu leen fàtte recharger seen carte xéewal ngir ngeen am tukki bu gaaw te ànd ak kaaraange. autoroute Sénégal ñoo leen di ñaanal tukki bu gaaw te ànd ak kaaraange.